asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Leral TV ak yéen ñi ñi faral di suivre ci leeral point net comme ni ngeen ko gisee sama ginnaaw donc Jakarta yi ngi dem ak ñëw di yóbbu nit ñi vraiment euh, secteur bi nekk benn secteur boo xam ne ñëpp ci yëngu jeune di mag ñëpp ci yëngu di daan seen doole mu nekk euh, dawal Jakarta nekk secteur boo xam ne en tout cas am na njëriñ lool ci li nga xam ne moo di euh, développement ci wàllum ci ci ci région de Thiès naka noonu itam rentrée économique bu am solo lay faral di am ci li nga xam ne moo di localité bu ni mel alors ñoom lañ dëkk lañ nar découvrir tey nara waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo di activité bi ci activité ñuy jëngu di euh, dawal Jakarta naka noonu itam bu fekkee am nañ ay difficultés yi nga xam ne ñu koy faral di rencontrer donc dinañ ñu ko dëppmal ci li nga xam ne moo di suñu reportage du ñu bàyyi leen ak ñi xam ne mooy dawalkatu Jakarta yi tey jii euh, Thiès nekk benn dëkk boo xam ne maanaam euh, liggéeyum dawal Jakarta dafay nekk lu lu lu am njëriñ parce que gis nañ fi macha allah Jakarta ni ñu fi bëree alors tey jii est-ce que mën nga ñu expliquer réellement rek naka la liggéey bi di waaw macha allah parce que li li nga ma laaj nii dama ci sawar a tontu parce que Thiès moom euh, képp ku ko xam jamono jii xam nga ni euh, Jakarta macha allah euh, benn région yóbbalatu ko dara au contraire ñi ciy nekk ci yeneen régions yi sax dañuy daw di fi ñëw mais tamit dëkk bu métti la dëkk bu méttee métti métti parce que ñun fii nii conducteur Jakarta yi ñun duñu ay syndicaliste lañu parce que suñu liggéey dañuy waxtaane ci turu Jakarta yëpp parce que ñun duñu bubboo benn Jakarta xam nga. Euh, vraiment mun tamit liggéey bi dafa métti fi à Thiès métti na ba ci kanamu yàlla parce que fii euh, dañuy génn policiers yi di ñu dàkki di jàpp si ñuy moto dañu laaj cinq mille francs six mille francs heure bu leen neex nag xam nga bu njëkk dañu wax à vingt une wala à vingt heure léegi nag heure bu leen neex la heure bu leen neex la ñuy génn di ñu jàpp parce que euh, semaine bee passé defoon nañ fi benn point de presse intersyndicat bi ñu defoon ñu doon wax ci suñu problème mu xaalis bi nga xam ne Macky Sall mayoon nañ ko. sa fait muy quatre cent cinquante millions mais boobu xaalis boobu ba léegi dégg lañ ci am te pourtant képp koo xam ne rek amoon nga amoon nga ci wàll rek ñëpp jot nañ seen alal ba mu des ñun euh, Jakarta man yi. sa naataango dafa ñëw léegi ci li nga xam ne mooy euh, maanaam mbébét bi mu am par rapport ak nga xam ne moo di jakartamaan yi nekk Thiès fii maanaam ngeen booloo pour am tey ji benn salut commun maanaam bu fekkee da ngeen di revendiquer benn affaire aussi ngeen amaale tey ji li nga xam ne moo di ndëgërlaay bu ni mel. moom laa lay expliquer ne la booloo nañu administrativement taxaw nañu. il sont de la CSA je suis mois de l'UNSAS donc taxaw nañu mais pourquoi bëgguñ ñoo reconnaître ils préfèrent par exemple le fiche de recensement sur les quatre cent cinquante millions dañu woo une personne boo xamante ni qui n'a même pas de papier administratif jox ko ne ko va recenser ni ñuy recenser ñun ñu am ay sources sur ne nii ñuy recenser ñëpp nekkuñu si mu am ay affaire yu am si biir yoo xamante ni ñu dem ba gis ko ne lii xam nga coolu coolu mooy lan c'est pour vous dire que ni dañu pare pour jóg te loolu dañ koy xeex te ñoom ñoo ko indi amul ay problème mu mën na meeg yooyu de ku bëgg dem di dem parce que fii ki lay jiital sax moo lay yàqal. la fii Thiès Thiès nekk dëkk boo xam ne ci wàllu ma dawal Jakarta donc activité bu ñuy naatable parce que gis nañ recherche bi mais au delà de ça aussi gis nañ tey jii que c'est un secteur prisé alors jii mën nga ñu expliquer un peu environnement bi. ku wax Thiès xam ni nekk na dëkk bu mag boo xamante ni liggéey lu fi jafe la. fii Thiès mënoo ne fenn foo xamante ni di nga ko wax foo xamante ni ndaw yi jeunesse yi mën nañ xëy dem wut fa dara amu fi. donc benn solution leen gisoon muy Jakarta tey Jakarta boo ko xoolee xam ni defaruñ ko pour transport mais un pays comme le Sénégal ñu xam ni c'est un pays sous-développé donc lii moom leen utiliser ñu ndaw ñi ñu xam ne lii mën nañ cee génn ñu jël ko di si def transport mais si transport boobu dañ si jànkoonteel ay jafe-jafe yoo xamante ni fii ba suba boo koy wax du deñ benn mooy jafe-jafe yi ñuy am ak takk der yi benn mooy jafe-jafe yi ñuy am pour wa pour am wàllu kayit donc dafay nekk lu metti metti loo xamante ni te boo xoolee ba ci biir man je diir dire nii si gouvernement bi la gouvernement bi ñoom ñoo taxawul pour jàppale les jakartamaan parce que lenn moo am tey euh, gouvernement bi moom moo waroon taxaw jeunesse bi nga xamante ni nekk na fii pour jàppale leen liggéey mais tey bu ñu demee ba ñun jeunesse bi jël lii di ci am li nga xamante ni moom la ñuy yóbbu suñu njaboot alors que teguñu si condition yu baax. gis nañ benn phénomène boo xam ne dafa gën a inquiétant muy euh, phénomène immigration clandestine bi alors est-ce lii mënul nekk tey ji benn frein euh, ci ñenn ñi nga xam ne xëy na mënoon nañ jël euh, gaal yi dem ci Europe parce que bu ñu gisee Jakarta amaana mën nañ toog donc day rejoindre rek li nga wax léegi maanaam ñu yombalal leen yenn procédures yi. waaw le ministre Mansour Faye daal li koy wax moom mooy ginnaaw xale yu jug nañu. ba ñëw am benn moyen muy Jakarta moom la ñu amagum en attendant ñu koy changé di indi yeneen xaalis bii daal nga xamante ni tey dañ leen ko octroyé woon pour ñu mën a regle seen problème mooy lan ay carte grise ay permis de conduire su ko defee ñu allégé ko oyofal leen dina tax tey ak takk der yi noppal leen parce que problème bi fi mu nekk mooy Jakarta bi ñu yor liñ leen ciy teg mënuñu cee yor seen kër di ko verser ba pare takk der encore sonal leen moo obligé à la fin dañuy choisir dem mbëkk dugg ci gaal gi kon Mansour Faye li mu njëkk war a mën a def moom mooy organiser les Jakarta au niveau national je parle au niveau national parce que si tu pars à Kaolack mën nga ni quatorze mille conducteurs kees fi mu ne nii war nañoo toll treize mille conducteurs Jakarta kon xam nga loolu moom dañ leen war organ nu mu gën a gaawee laa wax ah, le ministre avant muy def dara na régler problème boobu. man problème bi yéen ak takk der naka lay deme exactement yéen yéen nekkul ci yoon wala ñoom itam ñoom ñoo leen bunu xatal rek. ma ne bu ma doon wax dama naan ñoom ñoom ñoom ñoom su ma doon wax dama naan ñoom ñoo nekkul ci yoon parce que koo xam ne sénégalais la dëkk ci réew mi di citoyen yee bu fekkoon ne dëkk bi dox na na mu war a doxee benn état ko war a jox liggéey wala état bu la joxul liggéey boo boo nekkee ci leneen loo yëngu moo xam métier la wala leneen lu doon mu daal la koy sàmmal. ndax dëkk yi fi avancé yëpp xëy na noon la ñuy noonu la ñuy doxee wala dëkk boo xam tamit ñu ngi naan ah, état civil dëkk bu dëkk boo xam dëkk yoon la. dëkk démocratie dëkk yoon la kon jàpp naa ne dëkk bu mel noonu waroo faa dëkk ci dëkk ba di yëngu ci leneen loo kenn daal maanaam di ñàkk jariñu nga nekk ci secteur ñu bool laak am na te ni nga xam daanaka sunu alal rek lañ leen di fayee ñu lay sonal ci kaw tali bi loolu daal mooy suñ jafe-jafe mooy suñ suñuy jooy loolu moom la ñuy jooy surtout amuñu fuñ ko jooyee. alors tey jii a ngi yëngu ci wàllum dawal Jakarta tey ji est-ce que mën nga ñu wax exactement maanaam liggéey bi naka la demee. waaw ñun fii liggéey bi policiers yi ñooñu sonal parce que fii da ngay liggéey am ñu borom kër yu bari yoo fii ay amee ay borom jabar ay ñoom ñoo fi nekk di daan doole xam nga am na ñoo xamante ne dëkkuñu fi am ñoo tamit fi leen dëkk di daan doole mais imaginer tey nga liggéey am benn 6000 ah suba ba fajar ba léegi gay doo am benn six mille policiers yi daje fekk la sa arrêt jàpp la xam nga lekk sa six mille franc si koo xamante dafa waroon joxe dépasse am ñoo xamante ne ñu feebar lañu yore kër ga xam nga war leen a war leen a jëndal ordonnance wala dara xam nga ñu ñu jàpp la lekk sa xaalis tamit tamit loolu ba ñibbi sax doo yóbbaale dara seen kër loolu tamit teguñu ko fenn. mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan ci Leral TV comme ni ngeen ko gisee actuellement ñu ngi ñu ngi woon fii Thiès donc doon rencontré ñi nga xam ne mooy dawalkatu Jakarta yi Jakarta nag maanaam activité bi nekk loo xam ne c'est un secteur très très prisé fi nga xam ne moo di région de Thiès alors ñoom nag jot nañoo waxtaan ak xam ne moo di seen activité ñeel wàllum aussi li nga xam ne moo di difficulté yi nga xam ne dañ koy rencontré ci li nga xam ne moo di seen activité naka noonu it lancé nañu benn message ki nga xam ne moo di chef de l'État ci li nga xam ne moo di jàppale bi naka noonu itam voilà ñu ngi kaas ci li nga xam